ñu def ay audio ne wax ay vidéo ne waa kër Macky la ndax waa kër Macky moom xas nañ leen ba lu leen waxati sénégalais yi gëm ko Pape Birame Khoudia boo bëggee de assemblée nationale neex na lool mais ko ba yoon natt ko a dem ci élection parce que boo leen boo leen ko tasee heure bi boo leen demee ci élection yuuxu dina jug fu ko féegaloon parce que ngañ dem Touré xale yi bu ñu commencé excellaté personnel xale bu nekk dina am 1 million expert bi booy doon dundee man leen booy yi nga àndoon ak yéen ñoom comme ñu tekkiwu dara lañ ci expert lañ nekkoon ah. Ousmane Sonko jàppee leen ay xar ba takka leen leen guddi mu wata leen ay bracelet dof yooyu fan leen ngeen nekk ci réew mii ngeen xam dafa tële que la ngeen leen waxoon dara amu ci d'accord alors euh, euh père jaaraaleen noonu nga nga sa mot de la fin sax amoon ci heure jeex na booy jàng ba ni def français du ñu leen dof da ngay nax sa bopp

dama ne bu dee yéen enseignant yi rek Sénégal du développé dama ne bu dee yéen kay Sénégal développé parce que man kenn du alpha oto nga gaare ci biti oto laa gaare ci biti sama kër a ngi fii wakam mais sama kër a ngi fii wakam mais sama kër a ngi fii dama ne loolu du dara dama ne dama ne yéen li ngeen am complexe mooy man dama ne man awma complexe wax français mu def foot xam nga lu tax mais li may def mooy en immobilier man en immobilier ñi nga xam ne nag dañu jàng en immobilier référence laa